boo xam ni jàpp nga ni boo tëjee boroom coow am walla koo xam ne boo ko jàppee coow am te mën naa am dossier yooyu ñun xamuñu ñan la parce que tuddunu seeni tur am na ci xëy na ñoo xam ne tudd nañ seeni tur am ñoo xam ne tuddunu seeni tur xëy na xamuñu dossier yam teg cooncoom xamuñu ñan la waaye kii Ousmane Sonko mii lii muy dund nit ñi dañ koo yëg gis ko di ko dund. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, cher internet Bass Media TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen dalawaat dalalaat bu baax a baax euh, ci seen scène bi di la scène du futur tey ñu am gan gu ñu war a waxtaanal ci tolluwaayu réew mi ngir saa su nekk rek nii lay doxee nii dañuy xool ñi nga xamante ne si amal nañ njariñ penc mi amal nañ njariñ askan wi ñuy seq ak ñoom ay jotaay di am ak ñoom ay waxtaan ngir fi réew mi toll euh, ku wax nag réew mi xam ne جاخاسونا كو واخ ريومي خامني تول نا سي جافي جافي كو واخ ريومي خامني ني باري باري اي كليفا اك بوروم خام خام فاسيني لين لاج سين خلات سي ريومي ني دالال باي مو الحمد لله سانت سن بوروم سبحانه وتعالى من خامني ممرك رك يا يا سانت ndax moonu sàkk andi nu fi ci coobareem ñun nag ñii di wax seen mbokkum taaw lu bela mu sant mbuub waaye di wuyoo saar saari seex ibrahima saar boroom jasaaka ñuy lay fay nuyoo fas yit di tontu ci laaj yi ngay nuy laaj te sun borom subhanahu wa taala rek tax jerejeuf di la sante bu baakha baax ci presentation bu am solo bi seigne bi mbuub ñi ngi lay jaajeufal bu baax ci nangu gi nga ñu nangul entretien bi ñu fas def mu tollu fo xamanteni ci rewum senegal euh bëgg nañ ci waxtaan ci walu jafe-jafe bi nga xamanteni ci si tension politique bi am ci réew mi euh, ku ci nekk am ci xam-xam ñu ci bari am ci xalaat ñu ci bari nekk ay waxkat war cee wax ñu ci bari di ci wax te duñ ay waxkat loolu ana lan moo ko waral tension bi nekk ci réew mi lan nga yaakaar ne moo ko war a mën a saafara sëñ bi Mboup jërëjëf gannaaw ban sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Seydina Muhammad jërëjëfal Sëriñ Tuubaa sukkandiku ci sun ñaari waajur ñu nu meññ def nu ay jullit meññ nu def nu ay taalibe Serigne Touba mu ñàkk sikk moom mu nga xam ne e, jaamu sunu borom subhaanahu bu mat bu matale ba ñàkk sikk ñu ay taalibe rek fa séene yëkkati sunu kàddu ngir mu doon njariñul képp koo xam ni dégg nga ko wax nag yombut li wax di jafe-jafe dégg wax moo ko gën a jafe waaye su fekkente ni nit ku ne jàpp nga sa bopp ab jullit gëm yàlla wóolu ko gëm alquran gëm ni sallallahu alayhi wa sunu sun boroom a ko yónni lim nu digal ak lim nu dig nga gëm ko gëm ni wax yoo wax di nga ko waxaat soo àndul ak njëggalal sunu boroom saa boo yëkkatee sa kàddu di wax rek war ngaa wax loo xam ni ci dëgg rekk nga koy teg su fekkente ne dangay wax ak ay nit bëgg lu leen neex wala bëgg lu leen naqari ca wax ja wax ja du doon wax juy jariñ dara soo yëkkatee sa kàddu di wax dangay wax te sunu borom rekk tax bu dee ni kenn ngay waxal na wax ja yàlla tax bu dee di mbooloo ngay waxit ngay waxal it na doon kàdduy dëgg yoo xam ne suñ boroom rekk ay tax mooy tax wax ja am njariñ li nga laaj nag lu jara laaj la loo xam ni ndax réew mi fi mu tollu wax dëgg yàlla jaxasoo na te nii mu jaxasoo bu nee suñ borom la soob jëfi sunu boroom ak jëfi nit ñi dafa nuroo te wuute suñ boroom moom ay dogalam la yor ya ko soob mu dogal ko ngir nit ñi nit ñi nag dogali seen suñ boroom yooyu ci la ñuy dox di ci wax di ci jëf li leen soob suñ boroom maandu maandu boppam goo xam ni ginnaaw ba mu dogalee dogalam yi nit ñi di dox ci dogal yi di ci jëf di ci wax la la neex ak nam la neexee suñ boromam ma nga ni tekk rek su ko defee fii réew mi tollu te réew mi ki fi toogal sunu borom suba wa taala mi nga xam ni moom la seet ba mu doy ko mu def ko ci xolu nit ñi ñu tànn ko teg ko fu muy Alaaji Macky sàll moom ci boppam képp koo xam ni yëkkati nga sa kàddu bëgg jàmm na ko xamal ni jàmm ji ci moom la ko suñ boroom jaarale ngir mu am ci senegal waxuma la Sénégal waaye Macky Sall suñ boroom jox na ko dayo boo xam ni bu neexoon àdduna bépp am jàmm waxuma la ak Sénégal nga xam ni moom lañ ko dénk nit ñi nag ñu ngi wax naan toj gi tasiyon bi ay wi lan moo waral toj gi lan woo lan moo waral taal gi lan moo waral yàq gi loolu lan war a seet lan moo ko indi suñ xamee li ko indi ñu jéem a saafara loola bu dee nit a ko indi ñu ne ko aa ah, yow kat alam nit neexul dëgg moom dëgg la te tension bii fi nekk yaa ko fi indi ki nga xam ni moo ko fi indi mën naa am du moom waaye moom mi nga xam ni moo ko mën a saafara bu ko saafara wut da cee am part de responsabilité bu mag ndax Sénégal li muy rëy rëy rëy moom rekk la fi suñ boroom jox sañ-sañu def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi su wootee ñépp wuyu sawar ca bu ne len, len ñepp deglu sawar ca cër bobu la ko sun borom jox yal nako xam allahumma amin jere yal nako xam kon euh, bu déggé bu baax bah, baax da ngeen di bok ci ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy wax ni réew mi fi mu euh tension bi mu amé tal gek fay gi lepp ci responsabilité Macky Sall la nek wala ndax tamit yeen yalla dogal na ngeen fekke jamono sengor dundu ngeen jamono Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñu ci bari dañuy wax naan lii amu fi woon au-delà responsabilité Macky Sall ci bu bëggee réew mi am jàmm mën na ko waaye ndax lii ñuy wax naan amu fi woon amoon na fi wala amu fi woon loolu lañ bëggoon. maanaam amin yi moo wuute amul lenn luñ gis ci jamono jii te amul woon lenn rek moo fi am ñu teg ci bët di ko dégg te amul woon ku nek sañ wax lolu lan moko waral sañ wax gaw nga xamne ndax ñi war ñi wara wax dañoo waxut ba ñu warta wax di wax euh, ñi nga xamne dañ ni wax naan nan wax aduna ñet yi rek fi nek li fi sun borom defal bopam te lotu ci hmm. def nako ba mat li ci dess walu nit ñi la lu fi jag lu ne dox wax jëf moo koy jagal dëgg la waaye lu fi yàqu it dox wax jëf moo koy yàq yàlla ni ñuy wax li ñuy wax yàlla tax li ñuy jëf yàlla na yàlla tax li nuy dox yàlla na yàlla tax ndax li dox di defar faaw jéego yi mat te tegu ci dëgg bu matee rek incha allahu taala la ñuy bëgg mu jag dina jag. ndax jamono ji jàpp nga ne loolu mi ngi am ba léegi maam jëf wala dox wala waxta yàlla tax. dama laa bëgg a àgga tënkal ñett yi ba noppi. bisimilah. Eh, jéego yi bu matee te yàlla tax la nga bëgg incha allah wala lan bëgg dinañ ko bokk am li nga xam ni kàddu moo koy defar itam su kàddu yi matee te sunu borom rek tax te dëggu. bu matee incha allahu li leen bëgg dinañ ko am li nga xam ni jëf la itam moo koy defar bu jëf ji matee dëggu dëggu te suñ borom tax bu jëf ji matee rek incha allahu taala leen bëgg dinañ ko am ndax nag ni ngi doxee nin war a doxee te yàlla tax walla ñi ngi wax te yàlla tax wala ñi ngi jëf te yàlla tax foofu lan war a seet danga naan déedéet. lu waral loolu. li waral loolu mooy. gëm yàlla gi moo des gëm yàlla gi wóolu ko moo des ndax suñu boroom dafa wax ni sàkkul nit ak ginne lu dul ngir ñu jaamu ko te jaamu gi néew lool ba ëpp ba jéggi dayoo bu jëkk nit ñi dañoo gëmoon sunu boroom seeni wax seeni jëf seeni wax sunu boroom taxoon motax ñu daan réussir ci mbolam luñ bëggoon rek mu am mu am ci aman ana anam go xam gi nasun borom bëgge muy dëgg tegu ci dëgg bu fekkante ni yalla, yalla ba suñ xol yi leeru yalla am ci duñ rus duñ ragal duñ jombo waye kep ko xam gëm nga suñ borom wóolu diko jaamu lepp loy wax ding ko ci baye xel lépp looy jëf di ko ca bàyyi xel lépp looy dox di ko ca bàyyi xel bu fekkente ni suñ boroom dafa tànn kenn rek teg ko ci réew mi jiital ko nga xam ni lépp doole jëpp moo ko moom sëriñ su baax sii nga xam ni sax ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni jàpp nañ ni jàmmi senegal gii seeni waajur wala seeni maama ko fi def moom ci boppam moo leen yilif ci àdduna bu leen woowee sañ nanoo wuyu bu leen fekkee sañ naa sañ nan koo dalal kooku euh, may yi ko yàlla may yàlla na ko xam ba suñ ko waxee mu mën a dégg waaye ndax ñi ngi koy wax dañuy wax rek ñi ci ëpp jàmm ji jàmm ji nan wut jàmm nan wut jàmm waaw taal gi taal gi dégg maam ñaawtee fii am na ci loo xam ni bu ko neexoon tey tey tey tey mu dañ. ci naka la mën a defee ba loolu nga xamante ne si mooy taal gi euh, dañ ak fi réew mi toll nga xamante ne si bari waa na sax ñoo xam ne buy buy wax moom duñ ko seetaan. loolu dafa am njuumte moom ci boppam dafa am njuumte walla ñu juumloo ko man dey mang lay wax ben baat bo xamni bi suñ borom rek tax makoy wax xawma dama ma sa gis photoom yaakaar naa noonu loolu dama sax dama gis photo bi tey ko xol ko ni ki day jek na ci président neesal bobo wallahi al asim deguma ci kenn ñu ni mi ngi bëgg doon président wala moom ci boppam ba sama borom def mu nekk président loola nag xëy na xalaat la rek boo xam ni suñu borom moom lépp lu mu namm jaam dina ci xalaat. dëgg la xalaat booba ma amoon bëgg ko nag yàlla dogal mu nekk président ma bëgg ko waaye ba mu faloo wax dëgg yàlla yaakaar ji nga xam ne amoon nan ko ci moom ci ni mu war a doxale may gi ko suñu borom may ak tolluwaay bi mu toll ñu jàpp ni dafa maaseeg jamono doon ndaw nga xam ne la fi mag ñi defoon sàmmoon nan fi defoon nan fi ngor saxal fi diine macha allah rabbul alamina waaye àdduna di dox doxuk àdduna gi nag tax na koomum àdduna mi tax na nit ñi sàmmatuñ seen diine sàmmatuñ seen ngor du ci wax du ci jëf du ci dox ndax bu fekkente ni moom mi yàlla jox réew mi mënoo jàkkaarlook moom ni ko ah sàll ngaar yi neexul neexul waaye bu la neexoon mboolam ñint ci kaso yi ñépp nga ni bisub tey nañ génn ñéppay génn bu fekkente ni luwaa mayu la ko directif am na foo ko mën a jaar foo xam ne fii boo ko fa jaaree la nga santaane dinañ ko def ndax moom mboolam lu nekk ci réew mi rek moo yilif ñépp fu fi waay nekk muy àttekat yi

mom président mom ki nga xam sant nan ko lo xam fal nan ko diko sam lo lo xam li mang ma deglu ndigalal président. manam kon bu déggé bu baax la wax li Guy mari saña don fatali nga xam euh, li nga xamantene moy tak der yi bu ngeen jotee ordre bu légal bu légalout waro len ko obéir moy lol ngay bëgg wax. dama ni mom Macky Sall ci bopam waaw bu gëmé ni. moo yilif ñépp moo yilif léppi Sénégal fu waay faloo moo la fa fal lam la fa sant nga war koo def ngir jëmme suñu borom mi nga xam ne moo la sàkk sàkk ko def muy sa njiit teg la fi barab di la liggéeyloo lam lay liggéeyloo ak da xam ne gii moom nga war a liggéey lam lay fay nga xam ne moom nga war a dunde la sa yaram nga xam ne yàlla daf la sàkk ngir nga jaamu ko boo bëggee loola sell bu la digalee loo xam ne lii waroo koo jëfee boo ko jëfee mu indi fitna waroo koo jëf dangaa ngaa war a delloo suñ bopp sa bopp ci suñ borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo la fal jaarale ko ci moom bu fekkente ni dëggu na te gëm yàlla ak ragal yàlla ak gëm ni suñ borom a ko fal ba mu am dooley fale boo doxalee noonu bu delloo boppam ci yàlla dina ni ah ndaxam de kii dëggu na jàpp naa ne dina la fonk ndax suñu borom bu la naré sobantal sax suñu borom mi nga xamni ne moo moom dëgg yow yaa ngi dund deug suñu borom day and ak yow ba dula mëna dula bu la bëggé dakk sax dula mëna dakk ndax suñu borom do def ci xélam wala xolam mu lay dakk ndax suñu borom do def ci xélam wala xolam mu lay dakk nga wax lu am solo moy buñ la joxé ordre bu illégo waro ko obéir ndax mom président li nga waxé ci say biir wax ne am na kum bëgg jammal nga am jamm foofu la ko suñu borom tek ci dayo moom moo wax ci prés moom président moo wax ni am na dossier yoo xam ne bu ko laalee bu ko justice bi laalee maanaam procureur daf koy wax ministre de la justice ministre de la justice mooy président président da ciy teg concoom moom am na ay conco yoo xam ne tubaarkal la mi ngi ciy teg ay dossier léegi fi jamono ji toll ba tax taal gi am kenn doo nga ko waral muy diggante président Macky Sall ak président Ousmane Sonko. Mhm. concoom bi dafa fees ba nga xamante ne si mënut a jël dossier yi nga xam ne ñu ngi ciy tudd euh, Ousmane Sonko mu teg ko ci ndax wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek la yàlla bëgg bu dee dossier yoo xam ne bu ñu leen laalee laala guñ leen ndax dañ doon bañ dëkk bi tàkk bi nga xam ne dëkk bi tàkk na ba pare nag ndax jotut mu jël ci ay mu jël ci coom-coom boobu nga xam ne tubarkal la mën na ko cee teg. soo gisee li tax ma ree danga maa laaj loo xam ne dama ko bëggoon a wax te même boo ma ko laajut kon jërëjëf bi ma ko laajee. jërëjëf. Eh, ginnaaw moom dafa wax ni. man dégguma ko sama nopp bii de. vidéo yaa ngi koy boo bëggee sax man nañ la koo tegal man lu ma xam rek laay wax. moo ko wax président télé la ko waxee. dégg nga ñëpp di dégg. waaye loolu yaatu na ci dégg-déggu nit ñi ñu ni président moo wax ni am na ñoo xam ne bu ma leen jàppee wala am na dossier yoo xam ni maa ci teg sama conco amul dossier boo xam ne bii moo tax gis nga euh, sëriñ bi. Mm-hmm. nit ki bala ngaa yëkkati sa kàddu war nga ko seet bu baax a baax a baax a baax bala ngaa wax loolu. bala ngaa wax loolu sax doguma la dama ciy dugalaat beneen boo xamante ni si président ah. moo waxoon ni. Ah. ci nekkam. Hmm. ci kàddu yi nga xam ne yaa ngi koy yëkkati rek. Hmm. ci nekkam duñ ci jàpp journaliste di ko tëj. Hmm. moo ko waxoon France ci benn télé bu ñu ko invité woon te tey ji gis nañ Pape Ndiaye ñu ngi ko jàpp gis nañ euh, Serigne Saliou Gueye ñu ngi ko jàpp ay journalistes yu bëree bëri ñu ngi dund injustice boo xam ne ci réew mi jéggi na la muy conco bi ak journaliste bi nga xam ne li nga ne wax bala ngaa wax na ko seetlu ma dugalaale ci boobu. waaw fii li tax ma ni wax bala ngaa wax nanga seetlu li ngay wax bu baax su fekkente ni moom moo wax ni am na dossier yoo xam ne maa ci teg sama conco dossier yooyu ñu teg mu teg concoom yan dossier la lu nit def la loo xam ni waru koo def. mu sàkku kuréel nit ñii ma falkat dama bëgg ngeen di ma seetal alal ji ma leen di jox ndax fin ko war a def ña ko fay def walla defuñu ko fa kuréel googu saytu ni ndaxamkat ñii alal jin leen jox ñàkkul ni def nañ ci liñ leen waroon na defloo waaye defuñu ci lépp biralal la ko nga xam ko war leen a gëm war leen a wóolu ndax yaaw yaa leen fal te jàpp ni ñoom itam bu fekkente ni ci dëgg la ñuy wéy lan wax am na ñooñu ñu xam ni luubal nan yaa leen fal dëgg la kon waroo leen a làq boo bëggee sa sag ay neex soo bëggee delloo suñu borom gëdd bi nga xam ne bi moom la la jox ba jiital la ci ñaata millions yi sénégalais. 17 millions. delloo suñu borom njukkal moonu të moo tax jafe-jafe yi yépp am bu fekkonte ni nin ko wóoloo ci nammeelug sunu borom ba fal ko nga baal ma. dinaan sax naan ñi ëpp ci Sénégalais yi ñoo ko faral déedéet ñi ëpp ci Sénégalais yi faluwunu ko ndax ñi ëpp ci Sénégalais yi watu wotewunu dëgg la minorité kay ñoo wote ñi wote sax du ñëpp a ko wateel. dëgg la. ñi wate du ñëpp a ko wooteel te fi toll nii am na ñu ko woteeloon ñoo xam ne àndatuna ak moom. dëgg la. ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom te sañu ñoo bañ mooy ñi nga xam ni daf leen a fal. ñu koy xëyal di ko gontal ñooñu dinañ ci jëf loo xam ni li ñuy wax ci conce beeg teggi conce bi mhm. ñooña seenub atte ci moom la nekk ndax sunu borom subhaanahu wa njaboot gum la dénk dina la ko laaj yomal xiyaam dëgg la kon lii nu ko dénk dinañ ko ko laaj te moom ab laaj tem day rëy de ndax bu fekkente ne dangay bàyyi am benn doom wala ngay góor am benn soxna ak benn doom sab laaj mooy gën a néew ci koo xam ne dañ ko dénk ay millions yi sénégalais. kon moom war naa bàyyi xelam bu baax a baax a baax a baax baax ci suñ boroom a ko fal boo bàyyee suñ sa xel ci ni suñ boroom a la fal nag doon nangu kenn erreur loola te bu fekkente ne dangaa fal nit mu lay liggéeyal. nga gis ni lam lay liggéeyal jaarul yoon nga sàkk ko ne la koo ne gëstul ma mu gëstul la ne la lii am na erreur kooku danga ko war a woo corriger ko dëgg la waaye wóoroo ni damaa jël sama conco teg ko ci dossier bi nga xam ne dan ma ko indil ngir nga war a nga war a daan kii te daanoo ko loolu hmm. jekkul jaaduwut te loola mën naa doon loo xam ne nit ñi yëguñu ko wala gisuñu ko wala teg nañ ci seen bët loolu kii nag kii nga tudd léegi dañ cee teg suñ bët nit ñi dañ cee teg seen bët foofu laa doon bëgg jëm si sax mooy euh, ñi nga xamante ne si dañoo féeteeg moom bind nañ ay rapport yu baree bari jébbal procureur bu ñu waxee procureur rek wax nañ président te boobu ba léegi ubbiwun ci enquête wala buñ ci ubbee enquête ni ñuy sonnee ak ni ñuy farloo ak ni ñuy gaawantoo ci bu dee keneen ku bokkul ci ñoom euh, du demee noonu loolu lan nga ci xalaat ndax waxu par parloo gi ñuy wax ne euh, bu réew àggee fenn fi bokk na ci li ko fa yóbbu du foofu lañ nekk. foofu lañ nekk mooy rek la ma wax ni la ñàkk gëm suñu borom rek la ñàkk gëm suñu borom gi moo tax nit ñi waxatuñ dëgg doxatuñ dëgg jëfatuñ dëgg ndax dossier boo xam ni jàpp nga ni boo tëjee borom coow am walla koo xam ne boo ko jàppee coow am te mën naa am dossier yooyu ñun xamuñu ñam la. parce que tudd nu seeni tur am na ci xëy na ñoo xam ne tudd nañ seeni tur am ñoo xam ne tudd nu seeni tur xëy na xamuñu dossier yam teg cooncoom xamuñu ñan la waaye kii Ousmane Sonko mii lii muy dund nit ñi dañ koo yëg gis ko di ko dund te comme kee mu toj cooncoom amagul benn problème bañ problème a tax mu teg ca cooncaam sàkkaana kii nga xam ne kii mi koy dund kii war a gën a mat a teg cooncoom dëgg la bii moo war a gën a mën a saafara ndax toll dañ cee toll nit ñi xam ko gis li muy dund xam ko ñi ëpp ci mbooloo mi ñi ëpp ci waa Sénégal fi ñu toll nii am yërmande ci Ousmane Sonko am gis-gis ci Ousmane Sonko am yaakaar ci Ousmane Sonko ndaxam Alaaji Macky Sall day su fekkonte ni dëgg dëgg dëgg dëgg gëm yàlla mi ngi ci moom dem na Makka sun borom jox ko ciri àdduna yu bëree bëree bëri ba nekk président de la république waroon na moom ci boppam jàppale Ousmane sonk ci ni liggéey bii nga xam ne suñu borom dénk na ma ko ma jiite ko Sénégal di ko liggéey te ku nekk xam na ni kenn mënul ni Macky sàll defu fi. dëgg la mi ngi liggéey def itam li ngay def ndax moom nga waroon a def wala ni nga ko defee noonu la. wala am na loo waroon a gën a njëkk a def ci li nga def waaye def ji moom ala kulli alin def na kenn mënul ne defut dëgg la te kenn mënul ni ñàkk na xel waaye nag bu fekkente ne dangaa am mbooloo mu la wër te mbooloo mi ñi ci ëpp seen intérêt la ñuy àndeeg yow am na waa ju baax mas naa koo wax ni moytul ki gën a bëgg ki la gën a bañ hmm. ki la gën a bëgg ak ki la bañ ñoo yem ndax ki la bañ loo def du ko gis ci lu baax ki la bëggit erreur boo def yoonam danaan rek yow kay yaa fi gën yow kay li nga nekk noonu la te seen intérêt lañ koy defee loolu xanaa mooy ñàkk a maandu kon li ma la wax rek dellu ci cadre bu ñàkk gëm yàlla suñu borom subhanahu léegi ci noonu ndax wax xam naa li ñu dese ci waxtu bariwul sax waaye fi ñuy jëm si rek dëgg-dëgg mooy dañu lay bàyyi nga tëj li nga bëgg a tëj ci Macky Sall ak dossier président Macky Sall ak dossier bi nga xamante ne si moo nekk di yëngal réew mi ba tax borom kër bu yu nekk tiit ba tax boroomi alal yu nekk tiit réew mi tagatembe dara doxatul nit ñi bëgg a mënatuñoo voyager ci xel mu dal nit ñi bëgg a ñibbisi nit ñi bëgg investir. Euh, boo ñu tënkalee ni Macky sàll président Macky Sall moo war a def jàmm ci réew mi ndax jubak ak yooyu ñu doon li dugg si ci dialogue bi nga xam ne am na tey ay kilifa yëkkati fa ay kàddu. su ma sañoon nii ma jàkkaarloog yow laay jàkkaarloog El Hadj Macky Sall. Hmm. te bu boobaa duma ko wax lu dul ni. gëmal ni yow la yàlla jiital ci senegal ngir nga yor waa senegal ci jàmm ak ci dëgg ak ci njub bu nekkee ci yow bul nangu ko la ko yàqal. jortu nañ ne mi ngi yaa ngi jàkkaarloo moom ndax am nañ yaakaar ne dina ko seetaan wala ay jegeñaaleem danañ ko ko jox ndax kat celui le plus renseigné du pays. ba tax na na xam ni maa ngi koy digal xam naa sax. lottu naa ci digal ko waaye lottuma ci ndax jaamu bi yàlla laa ab jullit laa as gor laa te mooy sama président te yéene naa ko jàmm ndax bul fàtte lee ma tàmbalee lee ma xalaatoon ni jekkoon na ci président waaye ba mu faloo rek yàlla seede na ni eh, àndatuma moom la tax àndatuma ak moom mooy man doomu aadama képp ku koy sonal rek ak koo mën a doon doomu saf dëgg la te gis naa wala dégg naa wala yëg naa ñi ëpp ci nit ñi doomu aadama yi fi mu toll nii ñiy wax moom ci kaw ñiy wax moom ci suuf ñiy wax ci tele yi ñiy wax ci rajo yi dañ dul dañ ko dul wax direct ni ko Macky Sall indil jàmm Sénégal ndax kii ñu yaakaar ni mooy indi fitna dafa am lu mu bëgg moom mu am lu mu bëgg moom li mu bëgg am na ko kee li mu bëgg amagu ko te mën na koo jàppale ci li mu bëgg ndax bu fi jógee bu fi defee lu rafet kee ñëw àggaleel ko bu boobaa ndamam lay doon kon li ëpp ci mbooloo mi wu ëpp ci waa senegal fi mu toll nii si danoo jox bopp uh, Ousmane Sonko te moom la moom moo ëpp sens Ousmane Sonko ndax bu fekkonte ni fukki nit dong ko falit moom mooy président de la république dëgg la kon moo féete kaw ñëpp kon war naa jàppale usmaan Sonko yërëm ko jàppale ko ngir mu mën a taxaw ndax loolu la nit ñi bëgg lépp loo xam ne mën naa xañ Ousmane Sonko mu doon président ci président ci élection yii di ñëw bu jaaree ci loxoom bu jaaree ci yéeneem bu jaaree ci ci ci ci kàttanam bu jaaree ci sañ-sañam na ko wóor ni dina ko looyeeg suñu borom subhaanahu wa taala. dëgg la jërëjëf euh, sëñ bi Mbuub ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. kon dañuy daal di ñëw ci dialogue bi balaa loola rek ñu sant bu baax internautes yi ñuy seetaan di leen wax nii rek la ngeen wéy di abonné bu baax a baax ndax dialogue nationale bi nga xam ne président woote na ko sànq ca palais de la république am ay kilifa yoo xamante ne si boo njort nañ ne ñoo ŋànk réew mi muy kilifa diine kilifa aada ñu ne ci opposition bi ñu ne ci pouvoir bi ñi nga xam ne sax maanaam ay non alliés lañ leen tuddee féetewuñ fenn société civile ñëpp muy les forces vives de la nation téwone woon ci palais de la république ci dialogue bi am ñu fa yëkkati cadeau mu melni ku ñuy wax président Khalifa Sall yëkkati na fa ay kàddu déglu nga ko euh, Cheikh Bamba Dièye yëkkati na fa ay kàddu déglu nga ko Serigne Mansour sidjamil Djamil ak ex CIE euh, maanaam ñi nga xamanteni ne si euh, jotoon nañ fa yëkkati cadeau ñoñu fa yëkkati cadeau kan nga ci gëna tirer attention limu wax né président dana ko def. li nga xamante ne si moo jiitu dialogue bi ñii ne dañuy wuy ji ñii wuy ji wuñ ñëwal ñu foofu ba noppi. li ma xalaat ci bala maa ñëw ci ñi jël kàddu damay ñëw ci ni woote gi mu woote woote sooy woo ay nit danga leen di woo ngir yàlla ñu wuy si la ngir yàlla ngir yàlla mooy lan lan fay wax na sun boroom tax ndax wax ju sun boroom tax mooy jariñ jëf ju sun boroom tax mooy jariñ jéego yu sun boroom tax mooy jariñ te soo nee ñëw leen ñu bokk toog waxtaan waxtaani réew mi man àndumaak yi nga xam ni bu olof dee wax naan neex xel àggul ci nett li géntu sa moroom dama ciy ànd ndax ginnaaw moom daa woote rek te néewut lii la ñuy waxtaane dañuy waxtaane ci réew mi rek képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi te mën a dem da ngaa war a wuy ji waaw moom wooteem bi sax daf ne nan ñëw ñu waxtaane réew mi génn maanaam loolu ñuy wax consensus ku ci nekk wax sa xalaat ñu daal di koy bind teg ah, ñu bari nag seen ñàkk wuy ji am na fu ñu ko teg. waaw fi ñu ko teg mooy euh, bii dafa am yu ko jiitu te maa ngi dégg ci nit ñi ni am na yu ko jiitu yoo xam ni lan ca bëggoon gisuñu ko ca. dëgg la. su fekkente ne nag da woote ñi nga woo wuy si te la waroon ñu wuy si la yaakaar ban ca amoon. xëy na bu dee loo leen dig gisuñu ko wala la nga war a waxtaan ak ñoom waxoo ko ak ñoom leneen nga wax wala na nga war a doxale doxewuloo ko bu boobaa soo leen wooyatee pour ñu wuy si la du yomb ndax dañuy jort ne rek ah moom de woowoon nanu woowate nanu te amul benn woote boo xam ne bii mas naa am solution buñ ko jàppee foofu buñ wuy jiwut damay ànd ak ñoom waaye ñàkk wu jigiit wóorul ndax olof bari na lu muy def da cee xaar ñett def nga ko benn yoon def nga ko ñaari yoon mottali ko ñett soo demee nag gis ni bu njëkk ba amoo ca la nga bëgg bu ñaareel ba amoo ca la nga bëgg bu ñetteel ba amoo ca la nga bëgg bul ñeent waaye ginnaaw yow mi nga xam ne ci réew mi nga nekk am nga lu la naqari demal toog su waxee ni lii la yow itam nga wax sa xalaat la nga bëgg la la naqari na nga bëgg réew mi doxe ko te doxewu ko wala bu fekkente yow luñ la teg la te nga jàpp ne dan laa tooñ nga wax ko ca mbooloo ma mbooloo ngi toog du yàgg moom dong yéene toog la nga wax nit ñi toog dinañ ci bàyyi seen xel xam ne lii nga wax dëgg la wala du dëgg comme dañuy dialogue dina boole loolu ci wax ji yaakaar naa ca fin ba xam ne ah kii kat lii mu naq lii ko metti kat wax na ne moo ko metti kon lii ko metti mën nañ koo dindi kon ko dindi ki ñu def itam li mu bëgg ñu def ko te wax na ko fa kook itam nañ ko def. ndax jàppoo ne euh, lu jiitu ñëw ci wuy si dialogue nga fay indaale li nga bëgg bu ñu jëlee exemple bu ku mel ni président usman Sonko. moom dañu jàpp ay jege ñaaleem mën nañoo wax ne sax ay nombre deux maanaam numéro deux wala sax ñu ko gën a jege tey ji rek ci bëccëg dégg nga jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko euh, kii di euh, numéro deux wu Pastef muy Birame Souleye Diop député honorable député bu Birame Souleye Diop fële ca cité kër góor gi ndax boo jàppee di jàpp di jàpp say ñoñ comme niñ koy tekkee sax ñenn ci waa Pastef ne mëno làq paaka sa ginnaw di ma tàllal loxo ma lay wuyusi gis nga ma waxal la di sax dialog bi normalement dialog bi dialog bi li ci ëppoon solo mooy ci fi nu tollu nii waxtaane fa mbirum Ousmane Sonko. est-ce que ñoom bëgg nañ ko ndax man dama jàpp ne sax tey ji li gënoon a yombal dialog bi ak régler problème mu Sénégal yi fii ñu toll problème yi man dama jàppoon mbirum troisième candidature bi tax boobu ba léegi opposition bi nelawatut ta ma waxone ci ni oui ni non est-ce que jotul mo wax ci fan mo ci sama position bu nee damay bok ñu xam day bok par la force ndax ci constitution la koy tek bu nee duma bok mën ñu fexé ba bok par la force ndax lan ci constitution la ko tek est-ce que loolu gënul wona a gaaw bu ko defee ñepp soulagé wu réew mi dal koo dialogue mu mën a wuy si est loolu gënul woon euh, gis nga nii wooyi nii noo boobu mu wax su fekkonte ni gëm na ko dëggantaan walla seet na ko bala mu ko wax seetantal ko ba wax ko warut woon a nangu kenn naan ko def nañ la candidat waru ko woon a nangu. waaw ñoom de def nañ seen euh, investiture. ba ginnaaw moom dafa am gëm-gëm ni. du ma ni wéy du ma la nekk ci xolam moo ko xam xëy na dina am ab mu ni non wala am ab mu ni wéy bu boobaa waruta dunde noonu ndax kilifa la te ginnaaw jiitaloon nga sa kàddu yoo xam ne fi mu toll nii nit ñi gëmoon nañ ko soppoon la ci wóolu woon la ci yaakaaroon la ci teg la ci fu kawe boo demee ba wax joojee nga tege ko côté àgg ci du ma ni waaw du ma ni déet loolu desaa bu fekkonte ni garaad la la suñ borom tappal na la wóor ni suñ borom ma ngay wàññi garaad ba dëgg la bu dee doomu aadama yi itam ñi nga xam ni dañ laa gëmoon ngir yàlla wóolu la ngir yàlla di déglu kàddu yi dëgg ngir yàlla te kàddu yooyee na nga ko waxee doon dëgg mais jëf ja wuute bu boobaa nit ñu bari dañuy wàññeeku ci yow fi mu toll nii li ma la wax sànq ni la am na ñoo xam ne ñii loon ko wateeloon nan ko te àndatunoo ak moom am na ñoo xam ne ñii wateel nan ko ñi nga ànd ak moom ba tey waaye boo gisee ci ñi gën a ànd ak moom te di ko fësal mooy ñi nga xam ne da leen a fal nguuram neex ci ñoom ñu ciy jariñu ñooñu ñoo seetatut lu ko arrangé wala lu ko arrangé wut comme que ñoom seen buroo seen mbuusa ngi tooy rek ñoom lu def baax na lu mu wax baax na loolu nag la war a daw ba bu fekkente ni am na genn kilifa diine wala genn kilifa aada goo xam ne gii mi ngi ci réew mi tam jàpp ni waxkatu dëgg la di ko wax te suñu borom rek tax war na koo déglu bu dee ni ca kaw la wax bu dee ni ca suuf la wax tam man mii wax ak yow de maa ngi am yaakaar ci ni réew mi fii mu toll dinaa tudd ñaar ñoo xam ne ñii yàlla tax ma leen di tudd ndax maxtar Diop la grand serigne dakaar mën Mansour mbay ñaar ñooñu ay kilifa lañ ñoo xam ne ñi fekke nañ démb fekke nen tey te ñaar ñooñu déggaguma seen kàddu ñu ne dem nañ ci président wala toog na noog président wala noo wax na noog président te président ci boppam war na woo ñoom ñaar ñooñu bu fekkente ni ñoom amuñu xam-xam wala yëg-yëgub ni seen dayoo bi leen yàlla jox bu ñu demee ci président bu ñu ko waxee dina leen déglu dina leen déggal defuñu ko moom waru naa am sañ-sañu boo leen ni leen fii réew mi toll lu ngeen ci xam bu boobaa luñ ko wax mu jàpp ca te xam ni jàpp naa ne dinañ ko wax te suñ borom tax. est-ce que njortoon ne jot nañu wax ak moom tamit fi mu ne ñu waroon a wax ñëpp njort nañ ne wax nañ da leen a dégluwut wala boog mu dégg leen te. jëfewul lañ ko wax nga man li ma metti ci Macky Macky macha allah rabbul alamin dafa dafa xamul sax bind bi ko yàlla bind ci jëmm nii rek Macky ku ko gis soo ko xamul da nga koy bëgg mais soo ko xamee wax yu bari ak jëf yu bari yi nga xam ne dafa woroo mooy tax boo koy bañ nga di ko bañ wala boo koy xeeb nga di ko xeeb wala boo koy yeb nga di ko yeb waxuma la jëmm ji suñ borom sàkkal ko jëmmam ju macha allah rabbul alamina soo ko xamul boo ko nuyu surtout bëgg ko suñ borom dollil ko ci fal ko président de la république te balaa loolu nekk na ay poste jiite na ay poste poste senegal demoon na ba jiite fi Afrique yi ban nguur la bëggati ban nguur la bëggati bu mu amut ba tax na wërta nungu kenn di ko jege di ko wax loo xam ne lii waru koo def ginnaaw jàpp nan ni troisième candidat day indi musiba ci Sénégal mais bu mu nangu sax ko ko koy digal. ci ku bëgg Sénégal. bu mu nangu ko ko naan war nga koo def waru koo def ba mu nee du ma ne wéy du ma ne non parce que maa dégg ci làmmiñ mu wax ni su ma nee waaw ñi ñi ànd ak man dootuñu liggéey su ma nee déet ñi ànd ak man dootuñu liggéey loolu mooy lan kon ñàkk dëggu gi ma lay wax. day wér. waa diggante bi de fii ñu toll ak élection liggéey boo xamante ne si war na tax. doo wax wii wala campagne bu tax doo wax noo yaakaar na xajatu fi ndax déjà commencé nañ seen campagne ba investir nañ ko. coow li ñuy singali ak ñu naan président Ousmane Sonko moo fi indi violence bii ñuy gis président Ousmane Sonko violence bii ñu gis ba kay tudd di ko cuj baaraam est-ce que amul lu ko fi indi lu ko fi indi mën nga ñu see ñëwal bala ñoo yëkkati jotaay bi. gis nga loo gis mu yëngu lu ne am na lu ko yëngal. Ousmane Sonko da daan liggéey ci gouvernement bi yaakaar naa daan liggéey réew mi daal ci tënk. doon na liggéey. doon na liggéey mi général impôt et domaine. nga xam ne bokk na ci bànqaas yi gën a am solo ci réew mi. dégg nga ñu ni dañ koo dàq xëy xëy dàq ko xaw ma lu tax ñu dàq ko. dégg li ma lay wan toujours ni rek ni la. gën a gëm gën a wóolul rek nit ñi gëm yàlla gi moo des wóolu yàlla gi moo des ba tax na nit ñi bëggatuñu dëgg ci caaxaan rek leen ñuy dund moo taxit li feeg dellu woon ginnaaw te dellu ginnaaw day jafe dañuy sonn dañuy sonn dañuy gën a sonn li tax nag ñu war a gën a góor góorgóorlu ci jaamu suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ni moom la wax ni dama leen a sàkk ngir ngeen ngir ngeen jaamu ma sàkku ma lu dul ngir ngeen jaamu ma jaamu googu ñu war cee gën a góorgóorlu moo ñuy ndax boo dee jaamu yàlla te gëm ko te wóolu ko te yaakaar ko di sellal jaamu ko suñu borom dina def ci sa xol bii leer goo xam ni dëgg rek ngay dund looy wax dëgg lay doon looy jëf dëgg lay doon looy wax dëgg lay doon waaye bu fekkente ne loolu amut nin koy léebe naan àllarbay sëriñ bi wala dibéeri firaw na rek mooy ku jaamuwut yàlla dinga nga sa temps ci leneen loo xam ne lii doo ci amee yàlla su ko defee Ousmane Sonko da daan liggéeyal réew mi di sulli mbóot mbóot yooyu nan ko gëstu ba xam dëgg la wala du dëgg su dee dëgg ñu gis ni kii kat nit ku baax la ndax li nga xam ne bii da doon yàq moo ko wane ñu jël ci ay ay daan bu fekkente ni ku def loo xam ne lii jar nga jéggal ñu jéggal la boo defee loo xam ne warum nu laa jéggal ñu teg la daan ya ca war waaye nin koy waxee ci réew mi fi mu toll nga xam ne dan naan justice bi wóoluwun ko ndax am doom làq doom dóor dooma fi nekk ak yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne fi ñu toll dafa bari te jàpp naa ni nit ñi li ëpp ci li ñuy wax buñ ko xamut woon wala buñ ko gisut woon wala buñ ko déggut woon wala buñ ko dundut woon duñ ko wax te loolu fi ñu toll nii dafa booy nit ñi noppi nit ñi ba tax na loolu li ko indi dañ ko war a dindi te kenn waru koo dindi ko dul Alaaji Macky Sall. jërëjëf euh, ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa dañuy dañ lay sant bu baax di la gërëm. Euh, ci nangul gi ñu nangul entretien bi waaye loo lu nekkoon sa xel loo xam ne rek bëggoon nga koo laaj bëggoon nga koo wax di xaar ñu laaj la ko te jotuñ la koo laaj nga ñëwal ñu ko ci nga nuy ñi nga bëggoon nuyu ñëpp ñaanal réew mi ñu yëkkati jotaay bi. Euh, ñi ma bëgg a nuyu ñëpp mooy waa senegal gépp waa àdduna gépp nit ci boppam nit ci boppam dafa war nite. ne nit ñi delloo si seen xel ci ni sunu borom suba wa nit a ko gënal ci lim bind lépp boo xamee loolu yow sama borom booleel ci nit ñi rek war ngaa sant sunu borom ci boole gi la boolee ci nit ñi nga xam ni nit nga ndax sunu borom moo kawe ñépp moo moom lépp moo sàkk lépp mooy boroom lépp suba wa taala boole la ci li gën a bëgg kon yow war nga koo sant waaye nga boole ci sa bopp. boole gi ci sa bopp mooy lan nga gëm ko wóolu ko ba li nga xam ne mu sàkk la nga di dund su fekkente ni gëm sunu borom nungul ko mu def la doomu aadama nga am ci mbégte am ci bànneex li nga koy delloo njëkkal mooy nga gëm ko wóolu ko di ko jaamu ndax nga am liimaanu booy wax la ngay wax doon dëgg booy def la ngay def doon dëgg booy dox la ngay dox doon dëgg waaye loolu moo manqué bu fin toll nii far farloo far aay waaye far farloo moo aay te ñu ëpp ci ñuy farfarloo dara taxu ñuy farlu dul la seen poos fies la ñuy doonal la seen affaire di baax donc nga tax ñuy farfarloo te moo ne suñ borom moo yor ñëpp wërsëg gi suñ borom moo koy joxe booy def defal dëgg booy wax waxal dëgg nguur gu dul jeex amut te mënta fexe fexe fexe ba li nekk ci xelam lépp wala yéeneem lépp wala man-manam lépp mu def ko ci réew mi mënta nekk xanaa bu fekkonte ni luwaa amut bu ni dañ lay fal ci juróomi at wala nangami at bu jeexee nga génn dem keneen ñëw bu fekkonte ne loolu amut nga xam ni faluk suñu borom gi rek lay la ñuy topp bu boobaa mën nga fee toog éternel te bu boobaay saa boo faatoo di nga faatoo loo loo yéene woon loo defut di nga faatoo waaye loo bëggoon loo amut di nga faatoo loo bëggoon a wax waxoo ko di nga faatoo loo bëggoon a dox doxoo ko di nga faatoo loo bëggoon a jëf te jëfu ginnaaw nag ay loi moo am ñu ni nangami at nga war a toog boo ko toogee toogaat ko jeex na sëñ bi gëmal suñ borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moo la fal jaarale ko ci nit ñi su ko defee keneen kay ñëw yow li nga fi def kooku lu mu fu def sa mbégte la war a doon parce que yaa tàmbali woon comme nii nga xam ne noonu la fi waa Wade jógee dégg nga maam def fi li mu fi def ndax lu ko jiitu moo waa di wax dëgg yàlla ñi fi nekkoon dañ daan defar ay politiciens rek lan daan defar waaye réew mi bi Ablaye Wade di ñëwee wax dëgg yàlla ci la commencé soppeeku ci ay tabax ki ay yoon ak yu kenn xamut daanaka boo seetee senegal da naan benn hôpital la fi nekkoon ci waxin benn télé fi nekkoon benn hôpital la fi nekkoon benn benn benn benn benn benn tey bi Ablaye Wade di ñëwee def na fi yu bari moom li fi Ablaye Wade bàyyi woon bu ko neexoon mu ñëw saboté ko mais saboté ko macha allah rabbul ne daf ko àggale yokk yeneen def ko tàmbali ah nekkul ni lu mu tàmbali loo ne da ko mën a àggale. bu matalee na dem bu ko defee aw wayam rafet bañ a yàq wayam digganteem ak boroomam mi ko faloon bañ a waa yàq wayam ci digganteem ak ñi ko wóolu woon ba wateel ko nee naa la sànq am na ñu ko wateeloon ñoo bari ñoo xam ne ñi wat eh, àndatunoog moom fi mu toll lu ko waral ndax xëy na du moom waaye ñi ko ñi mu ak moom te mooma parce que bu fekkente ni yow yaa fal ba pare ngay fal koo xam ne kii li mu lay wax gënut ci yow baaxul ci réew mi nga di ko déglu yaa ngi mooma yam xulil aq walaw kaana murran ndax njortoon ne euh, président euh, Macky Sall amoon na yéene def ñaari mandat waaye bi demee ci biir ñi nga xam ne àndoon na ak ñoom euh, jël réew mi ñu si bari nekkatuñoo ak ñoom ñi nga xam ne dañ fee nekkoon di xe di ànd ak ki nga xam ne dafay bëggoon def troisième mandat Macky bokkoon ci ñi doon xeex loolu président Macky Sall bokkoon ci ñi doon xeex loolu ñi bokkoon ci ñi doon wut troisième mandat bi tey jii ñoo ngi ci moom. ànd ak moom ngir bëgg def troisième candidature ak li nga xamante ni si moo fi feeñ muy pétrole ak gaz est-ce que njortoo ne loolu bokk na ci lu ko taxa a soppi xalaat. gis nga loolu waru koo tax a soppi xalaat buñ ne ko woon fi ñu toll nii senegal am na jamaa sax buñ ko ne woon suufu àdduna suufu senegal gépp yàlla da koy soppi jamaa sax waru ko fee xaare damay toogaat na sellal lim fi waroon a def mat na. lim def bu mu ko yàq ci ngor bu mu ko yàq ci diine ngor gi mooy lan lim séq ak nit ñi ak lim leen waxoon diine ji mooy na gëm ni suñu boroom a ko fi tegoon te dafay jóge benn mën na fee jóge ci nguur gi di dundaat mën na fee jóge ci leneen lu soob suñu borom parce que dund dee fi nekk kenn ñaanalu ko mu dee buñ ko sañoon dina fi toog waaye toog waaye gu rafet goo xam ne gi kenn du ko sikk ci lii mu bëgg a def te waru koo def sam ngorom sàmm waxam sàmm digganteem ak boromam sàmm dignitéem wax dëgg yàlla moo taxoon ni kenn mënu ko fee def kenn du ko fi def wax dëgg yàlla bu demee ba ay nit naan ko yow waroon naa tëj gémmiñu ñooñu li leen déedéet ñun dañu doon liggéeyloo macha allah rabbul alamina liggéey nañ ba agsi fi nga xam ne fi leen war a wàcce nan jox keneen te jàppale kooka ndax lépp sunu ndam la ndax ñoo bokk Sénégal. jërëjëf lan nga jàngee ci discours Serigne Bamba Dièye bi ak euh, Khalifa Ababacar Sall. ñu tëjee foofu ñu déglu ci dialogue bi gis nga wax mën naa gudd te du am njariñ mën naa am njariñ sax benn baat am ci njariñ waaye gudd ga mooy tax njariñ la du feeñ wax mën naa gàtt am njariñ lool te soo gisee soo seetloo. li ma la wax ni nit ñi doxatuñu dëgg waxatuñu dëgg jëfatuñu dëgg ñi ëpp ci nit ñi Cheikh Bamba Dièye la mu wax macha allah rabbul alamina ci yooyu mu wax noonu ci lañ war a discuter ci lañ war waxtaan leen war a waxtaane ci li seex Bamba Dièye wax lañ ko war a tënk ak li Khalifa Sall wax ñeneen ñi wax nan de fàttali fàttali teyit man li ma gën a metti ci réew mi mooy sëriñ bi ñi ëpp ci senegal jàngunu kon suñ bëggee wax lu jariñ nit ñi dëggantaan nan koy wax olof nan koy wax olof ndax fi mu toll nii bu wote amee daanaka ñi jàngut ku falu ñoo la fal waaw nga teg leen fa dem di wax ak ñoo xam ne ñi yow mi foleeku ko ñoo la folli wala ñi banee fal faluñu la ngay wax rek ñoom lu dégg ñee nga xam ne ñoo la ñoo ci sonn la ngay wax duñ ko dégg ana njariñ bi amut solo na wax olof ñaar ñii laa fa dégg ñañ wax nag lan wax am na solo ndax wax nan ay jukko wax ay kii waaye wax loo xam ne lii moo indi tension bu réew mi ñetteelu màndaa bi ak ak ak li ñuy wax parrainage yi maanaam nan ko tënkee mooy nan waxtaan ci troisième mandat bi mu xamal nit ñi carrément ne la ma leen waxoon day néew ma newoon naa du ma ne wéy du ma ne noo waaye la ma ci jublu woon rek mooy te naa leen xamal ni maa ngi sàmm sama kàddu ci ni duma nekk président du ma nekk candidat bu boobaa incha allahu dina am ngërëmal sunu boroom ndax sunu boroom am na ñu ko fi nekkal ñoo xam nit ñi xaw ma dinañ wax nañ ko ko wala waxuñu ko ko ndax xëy na du bañ ko xëy ñu bugg nu itam mu wàcc waaye ci. luy indi jàmm tax mu wax ko bu boobaa dal dina am ñi koy liggéeyal du tere dinañ liggéey du tax ñu bañ a liggéey ndax fi mu toll nii réew mi bari na lu fi metti loo xam ne lii buñ ko doon wax fi la ñuy fanaan ndax assemblée nationale bu fekkente ni président ko yilif police président ko yilif tënkoon naa ko moo yilif ñëpp fu waay nekk moo la fa teg kon loolu doyna na ndam ci ni bu fekkonte ni jeexalut sax nit ñi maase ci ni ko da nga wara da nga fee wara même jeexalut sax bu fekkente ni réew mi dong nga ko ñor ak wa réew mi dong na top wa réew mi bàyyi ni la ah comme fo non ngeen ko gisee bayina def ay élection yu libre bayi ñi ci wër a bokk ku bëgg a ñu bàyyi la nga comme yow lin lay laaj am nga ko joxe nga ko nan bàyyi nit ñi soir cirque bëgg mu tok mu tok moom comme mën naa def dem defi leneen bu keneen toogee bu ko neexee dellu siwaat bu boobaa mën naa bokk bu boobaa day gën a yomb ci moom bu fekkente ne fekk na nit ñi dégg nga am teg nañ ko place bu boobaa dañ koy tegaat ci place bi rek. li ma ci bëggoon a dolli rek mooy ñun ay jullit lan te ay murit lan te yoonu murit moom benn kàddu moo mas a am ñun murit yi. kenn na war a wax moo fi nekkoon ba suñ jël yàlla yi tey ji kii fi toog di sëriñ Muntaxa yal na bur yàlla yàggal ko fi te yokk ko kàttan dolli ko wér ak ñun ak ñépp ba lim yéene ci réew mi yéene ko liggéeyal maamam ji yéene ko lislaam sama borom may ko ci aw fanam mu matal ko ku fi toogal sëñ Tuubaa rek jox na la cër ci lu wér ba tax na ñu bari sopp ko ndax ak taalubeem ak ak nangoom ginnaaw daawuñu wax kenn daawul sañ a wax nan noppi nan noppi bu waree wax wax su waree waxlu waxlu waaye léegi da ngay gis ñu ko jege di waxtu te wax wala taalube di nga moom taalube moomut woon di njëkk a wax sëriñ bi taalibe wutut woon amut woon dégg nga sañ-sañu di yëkkati kàddoom te fekk sëriñ baa ngi fi nan delloo si sun xel delloo si sunu taalibe xam ni sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéeyal na àdduna bépp ñàkk sikk yàlla nañ ko pour yàlla fayal nan tënku ci ak taalube ginnaaw ban doonee ay jullit yu sell nan sellal sunu taalube di déglu ndigal di jëfe ndigal li wajji laay taalaal karim ndax ñu am ngërëmal yàlla tey am njëgalum ëllëg yàlla nañu ko bur yàlla defal ci barke Seydina Mohamed barke Moustapha barke Xaadimal Moustapha allahuma amin jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, ci kàddu yi am solo yi nga xam ne jibal na ko di ab message boo xamante ne si mën nañ ne message à la nation message la boo xam ne ñi nga xamante ni sax nekk nañ ci Afrique bu ñu déggoon olof danañ ci tiire li nga xamante ni si mooy ay leçon muy kàddu yu ama am solo kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant mboolem internautes yi nga xam ne ñu ngi ñu doon suivre ci BMTV la chaîne du futur sant nañ leen bu baax di leen wax ngeen abone bu baax a baax gën a partagé te xam ne saa su nekk nii lañ koy defee di xool njëriñ di leen ko andil kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje lu yàggu dara incha allah danañ amalaat yeneen entretien ànd koog moom ànd koog ñeneen ñi nga xamante ne si ay borom xam-xam lañ yor ay xam-xam yu seetlu yu ànd ak ay teggin di leen ko digtal saa su nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Thank you.